salaamaaleykum internetu Feeling Dakar dal leen ak jàmm li na a fës ci bopp xibaar yi bokk na si affaire Ousmane Sonko ba tey am na ci ay information yoo xamante ni daan na ci euh, yeesandi euh, dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ak euh, Fatou Ndoye buñ fa jógee tamit dinañ wax ci li nga xamante ni moom moo ñeel kaawu Assane Diouf ak li nga xamante ni moom moo di Guy Marius Sagna ak Clédor Sène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 FRAPP France ak waa PASTEF Dakar amaloon nañ ko tey si suba ñoom nag euh, ponk yu ñu jot a yëkkati bokk na di ñaawlu arrestation yi nga xam ne nemmeeku nañu depuis coowlu Ousmane sonk yi bu mu jógee ba léegi ñaawlu nañ tamit euh, garde bi nga xam ne teg nañ ko ci kaw Birame Souleye Diop li nga xam ne mooy administrateur PASTEF ak euh, xale bi nga xam ne mooy Abass Fall ñoom tamit ñoo ngi sàkku ci nguur gi ñu bàyyi ki nga xam ne mooy Clédor Sène Assane Diouf ak ki nga xam ne mooy euh, Guy Marius Sagna ñoom nag euh, tey jii si suba namoon nañu amal euh, benn marche fële ci euh, place de la nation mais démb si guddi ñu dañ leen yónnee benn bataaxal bu jóge fële ci préfecture bu Dakar di euh, wane ni boobu marche mënula la antu na ñoom tamit nee nañu duñu sonn duñu tàyyi ci li nga xam ne xeex bi ñuy amal pour libérer seen mbokk yooyu ba na tamit namoon nañu amal beneen marche bu rëy le 2 bi nga xam ne mooy ñëw ñoom tamit nee nañu li nga xam ne mooy marche bi constitution Sénégal sénégalaise bi moo leen ko leen ba tax na ñoom dinañ jël seen responsabilité dinañ jël tamit li nga xam ne yoon may na leen ko suñu jugee foofu ba léegi dañuy des si coow li dem jëli kàddu yi nga xam ne député bii di Cheikh Bamba Dièye yëkkati na ko fële dem ci Walfadjri ci émission Balance moom nag dafa ñëwaat rek euh, ci euh, raison yi nga xam ne moo taxoon mu gedd boobu commission adop ñaawlu na tamit euh, patam patam bi nga xam ne def nañ ko ci procédure de levée immunité parlementaire du député boobu di Ousmane Sonko nag bëri na mais bokk na ci yu mu yëkkati tamit euh, li nga xam ne mooy ak ak yelleef Ousmane Sonko yi nga xam ne dañ ko salfaañe fële ci assemblée nationale ba tey tamit kii di euh, Malick Gakou Malick gàkku nag mooy euh, président du parti bi di grand parti moom nag ay jamono nemmeeku woon nañu njortoon nañu tax euh, mu waroon rallier fi nga xam ne mooy mouvement présidentiel bi moom nag génn na wane li nga xam ne mooy soutien am si député boobu di Ousmane Sonko ba tax tamit nee na moom mu ngi fortifier li nga xam ne mooy com teesu complot bi nga xam ne kii di député Ousmane Sonko moom mooy yëkkati na ko bi euh, coow li jógee ba léegi ba tey tamit ñu desandi ci bureau politique bu grand parti ñoom nag ginnaaw bu ñu dajee ñoom nag jël nañu décision jëmale ko ci député yooyu xam ne am nañ ko fële ci euh, assemblée nationale bañ voté li nga xam ne mooy euh, yëkkati immunité parlementaire bu Ousmane Sonko. ba tey ci li nga xamante ni moo ñeel affaire Ousmane Sonko ak Adji kii di Adji Sarr nag moom ni ki euh, suba euh, ci euh, alxames bi lañ koy daal di auditionné ki koy def nag moom moo di juge bu huitième cabinet bi di Mamadou Seck Mamadou Seck sax moom moo nekkoon juge bi nga xamante ni moo yoroon dossier wu ñoom Dame Amar ci li nga xamante ni moo ñeeloon affaire Iba Thiam ba tey ci li nga xamante ni moom moo di audition boobule aj Sarr nag dinañ ko daal di déglu ci li nga xamante ni moo di teewaayu avocat wam di euh, euh, ci li nga xamante ni ba tey moo ñel Ousmane Sonko ak aji Adji Sarr Serigne Modou Bousso Dieng moom nag daal di woon seeti ki nga xamante ni moom moo di euh, usmaan Sonko ngir antil ko ndimbalam ngir woon ko rek ni que euh, ñoom ñu ngi ci seen ginnaaw ñu desandi ak mbiru usmaan Sonko moom la kii kii di ay Diop Fall nag moom daal dina yëkkatiwaat ay kàddu yu ñagas jëmale ko ci euh, usmaan Sonko moom nag Aïssatou Diop Fall kàddu yi nga xamante ni daal na ko yëkkati nag du ñu ne guléet ndax moom à chaque fois. mu defee ay sorties jëmale ko ci euh, Ousmane Sonko rek kaddu yooyu du neex benn yoon dañuy daal di teewlu kaddu ay Diop Fall moomu lee ci leneen Sonko jaay ñu jënd ko ak Sonko jaay àddina ñoom da Sonko nekk cet espoir face à beaucoup de choses mënuñoo gëm ne que cette personne là euh, mën na def lu mel nii ba nga xam ne euh, loolu noonu nag am mu mu bett leen. Ah, au-delà de xaaral rek xaaral Cheikh xaaral Cheikh xaaral xaaral non def bi xam nga lan la je m'explique ci def bi. Ah, non def bi mooy dem ba. Ah, dem bi ngay wax xam nga dem bi laay wax. waxuma parce que man du ma du ma du ma juge. Mm-hmm. du ma tribunal fi kenn xamul lu xew ci yëf yi mais dem bi d'abord. Mm-hmm. ndax li xew naa la lañ sekk ñoom ñaar kooku dina leer ci procès ba. Mm-hmm. mais dem bi dem bi Sonko dem foofu. loolu mooy erreur monumentale c'est c'est l'erreur de sa vie la faute de politique de trop donc cette faute politique là ñi ànd ak moom ñëpp ñii di wax ñii ñëpp fukki seen fukki xale ak juróom-ñaar xalaatuñu ñu def la même faute mooy dem waaxu ji te certainement am na ñu ñu def pire mais ñu ngi ñu ngi suturaa seen bopp te kenn mënu woon imaginer parce que je dis encore une fois tey jii ko dem salon de massage mais pourquoi mu choqué à ce point là président ma Sall bu demoon xëyoon suba tey ñu ñu dégg ko ci ci salon de massage dina metti nit ñi de dañu choqué léeg-léeg nit ñi dañu bëri un suñu président la mu fay dem waaye dina am benn bémol mooy yu ñu ibaadu président Macky Sall mosu wane ne saint la Sonko moo moo ñu gëmloon na presque euh, euh, damatu laaka la ñi ma àndal teg ko yàlla teg ko yonent bi mu jaay ñu ibaadu ibaadu mooy lan nag ñun ñun waxuma dugg ma sax si étymologie wu euh, ibaadu mais ibaadu mooy lan ñun ñun si ñun ñi merci liban ibaadu mooy lan faati si ñun suñu entendement mooy lan ibaadu mooy koo xam ne du jox loxo jigéen du def mais moom Sonko encore une fois et ça c'est important à préciser et je n'arrêterai jamais de le répéter parce que man dama gis ne manipulation bu ñoom Sonko dañu jéem manipuler di foyee suñu xel ak di foyee seen xel ñoom nañu arrêté parce que encore une fois Sonko il a deux épouses ñaari soxna la yor. mais dafa demoon xaaral ñaari soxna Faty dafa yor ñaari soxna. Mm. moo jóg. taal otoom àndul ak chauffeur àndul ak kenn. taal otoom dem demati ci salon de massage boobu mu ñëwaat ci salon de massage bi. photo yi ngay gis yow Fatima nga koy gis nga koy gis photo Adji Sarr yii Adji Sarr am 20 ans Sonko war na kaa mën a jur benn Adji Sarr kan la mën a faj loo ko gis mu sol ci photo yi jumbax awtu Euh, yëre yu nekk ci xaaral chérif jëma ko àtoj yëre yu nekk yaram yu nekk ci biir nanga nangam kooku lan la jàng ci thérapie dafa jàng école sax bay bay xam ni ñuy marché lu ñuy naa màngam hmm. foofu ku fa dem ci thérapie amul amul foofu euh, li ma lay wax ne la c'est la faute politique qu'il faut que que Sonko doit assimiler assumer tant que assimilé wu ko du ko mën a assumé. Mhm. bu ñu jógee ci kaddu Aïssatou Diop Fall moomulee dañuy daal di teewluwaat yeneen kàddu yi nga xamante ne nii Zac moom moo ko daal di yëkkati Zac nag moom ab artiste la moom nekk doomu commissaire Keita commissaire Keita mi nga xamante ni moom tamit daal di woon na def ab sortie di wax euh, fi mu euh, far ci camp wu Macky Sall ci noonee nag doomam di euh, Zac moom nag rafetluwul benn yoon kaddu yi nga xamante ne nii papam daal di ko yëkkati di jéem suuxal ki nga xamante ni moom. moo di Ousmane Sonko ci noonu yi sax moom Zapp moomu leen daal dina xamle rek ni que jamono ji euh, état bi war nañoo am beneen priorité beneen euh, soxla ko ko nekk fii nii di def ay euh, plan yoo xamante ne nii daal rafetul benn yoon moom sax daal dina joxe dëkk yi nga xamante ne nii daal dinañu bëgg développer ñoom nag lu ñuy def priorité rek moom moo di wàllum économie nan la ñuy def ba seen société gën a jëm kanam ci wàllum économie wàllum wér-gu-yaram ba tax na sax ci jamono crise sanitaire bi nga xamante ne ñu ngi si euh, ñu xool vaccin yi nga xamante ne ni daal lañ leen koy andil ndax baax na wala baaxul ñu euh, testé li nga xamante ni moom moo di efficacité bi euh, vaccin yi tamit dañ ko jënd wala dañ ñu ko may yooyu yëpp nekk na ay analyse yoo xamante ni moom Zac daan na koy def Zac nag nekk doomu commissaire Keita dañuy daal di teewlu benn extrait rek ci kàddu yi nga xamante ne ni Zac daal na koy yëkkati. Ousmane sonk Adji Sarr donc doy na jamono lool waaye pour man euh, wax dëgg yàlla Ousmane Sonko il est innocent complot la pour man loolu moom xale bu ndaw sax la doo ko tegalee film bi vraiment <laughs> mën na la mën na la wax film bi nu muy jeexee léegi nag euh, problème bi ne se trouve pas là-bas pour man c'est nos politique politiques qui sont vraiment incompétents parce que jamono ji àdduna toll àdduna fii mu toll nii. nga xamante ne nguur yu baax yëpp dirigeant yu baax yëpp politiciens yu nekk ci dëkk yu baax yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi jéem a xool naka nañu war a mën def ba gérer seen économie gérer seen réew naka nañu war a mën def ba suqali seen économie naka nañu war a mën def ba bépp vaccin bu fay dugg mu nekk vaccin bu wóor bu leer ndax vaccin yi dañ ko jënd wala ndax dañu ko may donc y a tellement de sujets y a de sujets yu ñu war a mën wax yu ñu war a mën a leeral askan bi yu ñuy war a mën a def pour encadrer askan bi waaye duñ ci nekk at bi yëpp dañ koy politique loolu mooy lu may naqarlu lool ci Sénégal Ousmane Sonko il est innocent menace la nag pour tey Macky Sall loolu moom leer na donc loolu rek moo tax moo waral ñu bëgg éliminer mais amul amul amul amul leneen lu ne ci gannaaw loolu. question bi c'est un sujet c'est question que euh, tey beaucoup de Sénégalais ñu ngi doon xaar sama réaction la laa ci xalaat. moi je vais euh, très franc ak sénégalais yëpp d'abord ak moi-même je suis très déçu tey sama sortie bappa yu mu def ne moom Macky Sall la man ànduma ak Macky moom man moom gëwuma Macky Sall wax dëgg yàlla lu tax nag ma am lu ma naqadi am lu ma bett mooy dafa am fi mu jaar ak Macky Sall mu impacté lu bëri famille yoom Sénégalais yi bëri aussi doon ko xaar feneen moom mu jaar feneen moom nag am na droit tey en tant que sénégalais nekk ci dëkk bi féete fu ko neex mais man personnellement pour lu mu concerné ah ki moom mosuma ko votel te duma ko mos votel te je reste déterminé parce que gëm naa ne politique bu muy def Sénégal baaxul ci Sénégal et défend pas l'intérêt des Sénégalais dañuy wax nag ci rappeur bi di Nit Doff moom nag Nit Doff dañ ko bëggoon a takkal à tort et à travers ki ko bëggoon def rek moom moo di Alioune Badara Dia moom nag dafa daal di wax rek ni ko ci parti socialiste la daal di bokk muy PS moom nag dañ ko daal di inculpé ba noppi daal di koy placé sous mandat de dépôt gannaaw ba nga xamante ni dafa daal di am ñaari enregistrement sonore yi nga xamante ni. dafa daal di fuité euh, digg nag moom ko tegee loxo rek loolu waral enquête bi ñu daal di koy euh, def ba mu jàpp euh, ki nga xamante ni moo di Alioune Badara Dia moom la nga xamante ni moom nee na partisan bu parti socialiste la moom nag dafa bëggoon tuumaal ki nga xamante ni moom moo di Nit Doff ci noonee sax moom. daal dina wax rek ci kanamu enquêteurs yi ni que moom group boobu daf ko daal di créé woon rek ndax nag amul confiance ci ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko ci noonee sax moom liñ koy daal di toppee rek moom moo di. dañ koy euh, soupçonné euh, mu euh, préparer li nga xamante ni moom moo di insurrection ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Total ak Auchan ak yeneen société française yi nga xamante ni ñu ngi fii ci Sénégal bu ñu jugee ci loolu wax ci lu ñeel Assane Diouf Guy Marius Sagna ki nga xamante ni moo di Clédor Sène kii di euh, Guy Marius Sagna ak Assane Diouf ñoom nag gannaaw bañ leen euh, tegee loxo ñoom euh, dañoo daal di lànk ne duñu tontu question yi nga xamante ni nii enquêteurs yi daal di woon nañ leen koy laaj waaye nag kii di Clédor seen moom nag daal dina tontu ci question yëpp ba noppi sax daal na setal kii di Assane Diouf ak ki nga xamante nii moom moo di Guy Marius Sagna di wax rek ni que lépp moom la moom nag audio bi nga xamante ne nii daal dina koy yónnee moom daf ko daal dafa daal di jaawale ki mu ko waroon yónnee ba tax na sax moom si boo xam daal dina xamle rek ni que euh, ki date bi nga xamante ni daal dina koy woon joxe muy euh, mardi bi dafa daal di jum ci date bi rek au lieu de le 23 le 24 la ko bëggoon euh, wax ndax nag le 24 bii nii ñoom daal di woon nañ demandé ngir def benn marche ci noonu la préfet bi daal di bañee marche boobule waaye moom lu mu daal di xam ne rek moom moo di le 24 la bëggoon a wax au lieu de 23. kàddu yi nga xamante ne nii nag daal nañ leen koy wax léegi kii di avocat am di maître Khoureychi Ba moom moo ko daal di wax ndax nag moom te woon na ci boobule audition ci li nga xamante ni moo ñeel Covid 19 euh, lii di 4 euh, avril di feetum indépendance bu euh, Sénégal ren nag du am information boobu noonu waa l'observateur ñoom ñoo ko daal di fësal di xam xamle rek ni que état bi dañoo daal di jël dogal rek ni que. lii di euh, feetum indépendance ren Sénégal du ko euh, feete li ko waral nag moom moo di euh, jamono coronavirus bu ñu nekk waaye tem yi nga xamante ni nii dañ koy dañ koy jël rek dañ koy daal di développé ci li nga xamante ni moom moo di télévision yi. ñu koy ànd ak li nga xamante ni moom moo di DIRPA. dañuy ñëw nag ci li nga xamante ni moom moo di fait divers tey nag daal nañ am ñaari fait divers yoo xamante ni nii daal dina triste lool dañuy daal di bàyyi Fatou Ndoye rek mu daal di koy développé. ñu ñëw ak yéen euh, ñaari faits divers yi nga xam ne nemmeeku nañu dañuy euh, njëkk ci euh, ñaari néew xale yi nga xam ne nemmeeku nañ ko fële ci Kédougou ci fleuve Gambie ginnaaw nag kàddu yi nga xam ne jëlee nañ ko si seen famille ñoom nag kenn ki moo ngi am fukk at ñaar keneen ki moo ngi am fukki at ak juróom-benn at ñoom nag ginnaaw bu ñu tàggoo li nga xam ne mooy anniversaire dañu bu ñuy ñibbisi nag dañu jaar fi nga xam ne mooy fleuve Gambie boobu di fa sangu ginnaaw noonee nag dëkkandoo yi dégg ay. ay yuuxu bu ñu déggee ay yuuxu nag si la ñu daw jëmale ci dex ba bu ñu demee nag nemmeeku nañu xale yi commencé nañu diig si la ñu woowee waa sapeur sapeur nag bu mu ñëwee fekk na nag xale yi réer nañu ci biir dex boobu ay euh, waxtu yu bëri yi nga xam ne amal nañ ko ay recherche ñoom dañu mujjee bàyyi recherche yooyu ba tey si suba nag la ñu nemmeeku sept heures bu mu jotee si la ñu njëkk a gis benn néew bi ki nga xam ne xale bi am na fukki at ak ñaar si ay 11 heures nag la ñu gis beneen néew bi xam ne xale bi am na fukk juróom-benn benn at si noonee la ñu jël ñaari néew yóbbu ko ci morgue ba si noonee lañuy sukkandi pour mun a defoo benn autopsie. ñu jëli suñu ñaareelu fait divers di wax ci trafic de données personnelles ab pa nag bu am ay cinquante cinquantaine d'années moom nag euh, am na juróom-ñett bant ginnaaw euh, atum 2013 dafa ameloon ay vidéo jëmale ko ci aw awram vidéo yu doy waar nag bu mu ko dencee ci li nga xam ne mooy ordinateur portable am ginnaaw noonu ay at bu mu ci tollee nag dañ ko def euh, dañ ko fekk këram cambriolé ko ci cambriolage boobu nag ñu yóbbaale li nga xam ne mooy ordinateur portable am moom nag nag euh, ginnaaw bu mu gisee ay euh, photom yooyu ci euh, benn groupe whatsapp bi nga xam ne ay famille ñoo fa nekk ak ñi nga xam ne ñoo ñoom la bokkal liggéey moom nag dafa tuumaal doom bi nga xam ne mooy wuyoo si a dimi moom nag parce que nee na doomam boobu kese moo xamoon ni nga xam ne mooy code de verrouillage bi ba tax na moom nag dafa jàpp ne doom ji moo nekk ci ginnaaw ñi nga xam ne ñoo ko yónni pour yàqal ko pour def ko tamit chantage si nga xam ne paar yi nga xam ne am na ko ci seen entreprise boobee ñu bokk ba tey tamit paa bi nee waaye noonu dina ko yóbbu ci kanamu tribunal. ñu ñëw ci li nga xamante ni moo ñel actualité people daal di koy euh, tàmbale ak Pendo mi nga xamante ni Tange Tandian daal na koy dalal fi nga xamante ni moo di ca 2STV ci euh, célébrité en ligne moom nag euh, Tange daal dina koy posé question ci li nga xamante ni moo ñeel demam Amérique moom Pendo daal dina si tontu rek ni que. moom euh, digganteem ak moo géet jàmm ak salaam moom moo ci daal di am moom sax Pendo euh, daal dina def ay témoignages yu rafet ci ki nga xamante ni moom moo di euh, moo géet daal dina xam la rek ni que moo géet nit ku baax la nit ku am ngor la nit ku am jom la et koo nga xamante nii dafa daal di bëgg liggéey gëm boppam gëm réewam bëgg réewam bëgg investir ci li nga xamante nii moom moo di dëkkam Pendo sax daal na annoncé rek ni que kii di moo géet mu ngi waajal ñëw fi nga xamante ni moom moo di Sénégal et que bu ñëwee Sénégal rek nit ñi nañ ko accueillir à bras ouverts dañuy daal di ñëwaat ci émission bi nga xamante ne ni Pape Cheikh Diallo daal di woon na koy def ak Coumba Gawlo foofa ca télévision Futur Média muy invité d'honneur Pape Cheikh Diallo nag dafa daal di dalaloon kii di Coumba Gawlo sekk jamono yi nag gis nañ moom mooy Coumba Gawlo Seck ba mu annoncé feebaram ba tey nit ñi ñu ngi koy ñaanal ku nekk mu ngi def vidéo di ñaanal kii nga xamante nii moom moo di la diva Coumba Gawlo Seck ci noonee sax moom. Pape Cheikh Diallo daal di woon dalal kii di euh, Kiné Lam mu daal di def ay témoignages yu daw yaram euh, ci euh, Coumba Gawlo Seck daal di koy ñaanal moom tamit sax ba rongañam tuuru dañuy daal di teewlu boobule vidéo voilà ah. de par vraiment l'aura voilà elle elle est vraiment mm-hmm. elle fait partie des grandes divas mm-hmm. vraiment des mhm. grandes divas. Mhm. kon moom dañ koy ñaanal rek moom sama yaay mu gudd fan wér. Ah, ndax gis naa moom it taxawaayam boobu ba tey fu mu toll woo sama yaay. Mhm. bi ma tawatee ñëw na kër ga. te kat damay seet si yëkkati xaalis di ma may. <laughs> ma ne ko yaay xanaa da ngaa doon ba mu ne ma ay kuy seet si malade da nga koy jox xaalis. ndeysaan mënoon na ko ci bañ a fekk. ma ne ko teguma la ko. ngalam nga ci suñu biir ah. doyoo na ko yàlla may des. fierté nga. da ngay ngalam ci suñu biir te man xam naa ci dara ndax yaayam jee lu yend ci moom rek fanaan si na ci man ki ne laa ma yàgg ak ah. yaayam yaa ngi jooyloo ñëpp finalement ku bëgg awlo <laughs> waaw man sama man man xam nga man moo ma ëpp kii man aw ma courage. man dama fragile. man damay jooy ba damay jooy bay xalam. man noonu la ma yàlla bindee sama xol. sama xol daa gaaw a tooy waaye man daal maa ngi lay xamal ni daal sama doom jii lu dugg di nga ci génn ci mm-hmm. kattanu suñu borom billaahi man maa la ko li te su ma la xeeroon rek war nga ko xam maay sa jaamu yaay deret waaw mm-hmm. ah, ñaari maam yu bokk ndey ak baay mm-hmm. kii jur baayam kii jur sama yaay ñu bokk ndey ak baay kon man aw ma ko dul kii man mooy sama frère te heure bu woy grand théâtre dama naan bëri. mu ngi noonu maman Kiné Lam la woon moom moo doon def ay témoignages ci euh, ki nga xamante ni moo di Coumba Gawlo gannaaw bañ ko dalalee woon fi nga xamante ni moo di ca invité d'honneur ba tey rek ñu yeesalaat suñu ay ñaan jëmale ko ci ki nga xamante ni moom moo di la diva di euh, Coumba Gawlo Seck bu ñu euh, jógee ci loolu nag dañuy daal di ñëw ci dernière partie bu actualité yi muy tàggat yaram dañuy bàyyi Fatou Ndoye rek daal di ñëw andil ñu li nga xamante ne nii loolu la am ci actualité sportive tey. dañuy euh, ubbee suñu xibaaru tàggat yaram yi ak làmb dem jëli kàddu yi nga xam ne Gaston Mbengue moom moo yëkkatee na ko nee na moom nag am na yéene ubbee li nga xam ne mooy saison wam ginnaaw CNG su autorisé boobu date moom nag nee na dafa gis ci àdduna bi compétition yëpp a ngi continuer pourquoi pas fii ci Sénégal ñu def ko respecter li nga xam ne mooy geste barrière yi ba pare nee na li nga xam ne mooy euh, làmb ji war nañ ko mën a def huis clos ñuy xaarandi 4 boobu saison bi ci diggante ak ak Lac suñu jógee foofu dañuy dem fële ci Bordeaux wax ci ki nga xam ne mooy Youssouf Sabaly moom nag défenseur international sénégalais boobu ginnaaw bu mu amee ay gaañu gaañu depuis fin janvier moom nag dinañ ko nemmeekuwaat ñëwam samedi bii di ñëw fële ci FC Metz. suñu jugee foofu dañuy dem euh, fële ci euh, Chelsea wax ci ki nga xam ne mooy Edouard Mendy Edouard Mendy nag nemmeeku woon nañ ko fële ci ren mais après dafa rejoindre euh, club bi di Chelsea moom nag bu mu ñëwee Chelsea ba léegi mu ngi def ay jaloore ci Ligue des champions bi ñu nemmeeku sax mu dugal jongante bi nga xam ne amaloon nañ ko seen diggante ak Atlético cinquième clean sheetam ñu jeexalee xibaaru tàggat yaram yi ak euh, résultat yi nga xam ne nemmeeku nañ ko démb démb nag euh, Chelsea euh, moo dóor kii di Atlético 1 but à 0 Bayern dóor Lazio 1 but à 4 mbokk internet Feeling ndakaar yi ñu joxante dig daje si yeneen jotaayu xibaar. mbokk internet yi cant ak ngërëm ñeen leen fii dañuy yem ak yéen ci xibaar yi ñu leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di leen jox dig ndaje ëllëg ak jàmm ci suñu xibaar.